sénégalais yi foofu laay daanee dafa am solo dafa am solo gis nga jàpp Ousmane sonkoo du objectif bi principal bi objectif principal bi c'est la liquidation physique de Ousmane Sonko li may wax nii dafa am solo gis nga nit ñu doon arto ci jàpp bi maanaam jël bakkanam jël bakkanam parce que moo leen dese xam nga la mooy problème bi dañu jàkkaarloog ñoo xamante ne nii tey Macky Sall bu amoon tuuti élégance bi Ablaye Wade am du yegg ak fii Khalifa du yegg ak fii Karim mais sénégal yi tey rendre nañ compte ne talon dàll Ablaye Wade sax ko gën ndax lu lu ko waral mooy koo xamante ne ni nee nga tant que man brimé wu ma nit maanaam yàq nit ba réduire ko au néant duma am jàmm te soo koy def maanaam xeex boo xam ne da ngay yóbbante galgal rek doo taxaw mukk yow assumé li ci ëpp sax dalay fekk bitim réew nga ñëw nga ne nag Ousmane fii moom dinaa forcer mais xam nga lu war a xam forcé wul ak Ousmane Sonko de population sénégalaise lay forcé parce que bii du jàll. te dañu bëgg bu ñu ko jàppee ba dugal ko ci baro yi. assassiné ko foofu tué ko à petit fa sénégalais yi duñu ko seetaan dama bëgg mu leer nañ moo tax su ngeen fi nekkee di wax ay gis nga démb. est-ce que am ngeen firnde gi. ma ne ñi ñu doon informé ñoo ñu informé xam nga xam nga lu tax ma ne la dañu bëgg a rey nit. Mhm. mais ñi haine viscérale lañ mës a wone haine. viscéral bu ñuy wax sax safara day génn selal loolu moom yéen muy APR di yéen ku ne da ngaa wane sa ak mbañeel goo xam ni ah? mukk gis nga dama la bëgg a wax benn affaire yéen ñëpp radicalisé wu loolu moom yéen la ak amu fi gis nga man toog naa ci plateau ma sama ñaan bi gën a màgg mooy Macky Sall delloo si xelam terminer son mandat avec la manière joxe réew mi dem ñu fal ko leneen à l'international il doit pas il doit pas faire moins que ñu ses prédécesseurs. jërëjëf El Malick Ndiaye euh, secrétaire à la communication